jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax baax di leen jox seen wàccuwaay di leen wax na tey nag ñoo ngi fii indi 10 ah, defe naa ne zoo yu mag sax numéro 10 la ñuy xëccoo ba tax na tey ñoo ngi fi indi sa 10 seet si ki nga xamante ni mooy Petit Lo su ma nee Petit nag doom la ci Modou ki nga xamante ni mooy Modou Xarañ Lo ndax boo ko xoolee sax di nga ne ñu ci bëri dañ naan dafa ndóog Modou bu mu waaye nag deret la ndax deret moom du fen ñu bàyyi ko mu nuyoo euh, ñu doog a wéyal waxtaan wi Petit Lo nuyu naa la. waaw ah, auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi <laughs> ah, merci beaucoup <laughs> ah maa ngi leen nuyu bu baax xam nga di leen di leen siyaar bu baax a baax di nuyu di nuyu ñëpp di nuyu képp ku ñuy seetaan quoi di waa parcelle 1 ba 26 di nuyu waa 10 bu baax di nuyu waa 10 doole di nuyu waa gàlle yëpp yëpp di nuy sam papa bu baax di nuyu sama yaay di nuyu waa ahlu làmb yëpp yëpp yëpp. Hmm. di nuyu waa ahlu làmb loolu yëpp euh, balaa maa ñëw sax ci combat bi damay ñëw euh, ndax suma jumul juumul euh, pas su ma juumul sax invité woon naa la jàmmaarloo. Uh-huh. yow ak Boy uh-huh. mais ngeen dafa jàmmaarloo boo xam dafa neex bi mu génnee ñëpp ñëpp ñëpp apprécié nañ ko ñëpp ne combat la ñu ci bari bëgg ko ba ci moom bëgg na ko yow nga bëgg ko. Mhm. promoteur yi di leen woo mais lan moo lan moo taxoon combat bi taxawul. ah combat bi si ñoom la doon yàqu de wax dëgg ndax man moom waxoon nañu ba ma d'accord ba sama papa d'accord ba sama manager d'accord mais si ñoom la desoon quoi wax dëgg. ñoom ñoo pare woon. ah, ah xaw ma nag. mais mais booy si fay toog nee buñ ko joxoon avance mu yóbbaale ko. ay sa nekkul si magama maa ngi doon dégg daal ñu naan nangu na après deux ou trois jours ñu ne waat ma non non affaire yi xaw ma nag si kàllaa mais si ñoom la dal en tout bi taxawul ñu jékki gis sa combat ak Bébé taxaw. Mhm. Euh, yooyu tamit ma la leen jàmmaarloo ngeen xas-xasloo ku ci nekk wax ku ci nekk hmm. tamit nangu sa moom ne champion la ndaanaan la mais ñu gis ngeen dugg si ci digg géew bi bi nga dugg pas si digg géew bi dugg see ci biir stade bi hmm. dugg si stade bi mais musique bi bari loolu ci làmb ji sa diggante yow ak moom non musique bi bariwul non musique bi bari na kii rek làmb moo ko laajoon rek man ci man ci stade bi laa wax de ñëwaguma ci digg géew bi ndax digg géew bi rek ñu ci bay yaakaar nañ yéen a bëgg grand combat bi ah, làmb ji moo tolloon foofu amaana sax ñun suñu combat moo ëppoon coow grand combat bi Mm-hmm. Eh, làmb ji moo tolloon foofu rek eh, sama booy tamit jëloon combat bi xam nga yaa am fu ñu ko teg quoi man tamit aussi man maa amoon fu ma ko teg man ma def li ma war lépp ñoom tamit ñu may àndal ñu def li mm-hmm. euh, sama gars yi damay toog rek. waaw bi ma la laajee da nga ne ma booy nalawuñ bañ may jàpp ci ah, <laughs> mais euh, nan laa ko a waxee waaye bi bi mu leen invité Jamarloo. Mm-hmm. ma dégg ko mu ne moom moo bëgg bëri ak yow. sa premier combat ba léegi dafa bëgg a ak yow ndax te mu ëpp la combat def cinq combat nga def trois combat wala boog def waaw trois com quatre combat trois combat de nga def trois combat mu bëgg a ak yow bi nga déggee wax jooju mu wax la ko ci jàmmaarloo bi. ah genre xam nga làmb da ngay bëgg a bëre ak ñii ñii a bëre ak yow. Mm-hmm. te man bu ma amee benn combat am na a xam ne yàlla moo koy def quoi. Mm-hmm. am na loo xam ne yàlla moo koy def man ba nii nii nii am na ñoo xam te ne ñoom ëpp combat foofu dañoo bëgg a bëre ak man ñoo la ëpp combat nii nii. nga ah, bëgg bëri ak man mooy loolu mais man dem dafa am ñu bëgg bëreel. loolu di loolu dinañ ci ay jàmbaar <laughs> ay combat ay laabu combat jàng ma ñëw ci tuus bi. Hmm. nga ñëw tuus njuug ñu ne foofu nga yem. nga nga ne da ngay rendre hommage ki nga xamante ni mooy Moussa Dioum. Hmm. loolu choix boobu. ah c'est parce que Moussa Dioum sunu grand bu baax la woon quoi wax dëgg. waaw hmm. damay wax sunu père la woon ndax moom ak ñoom Modou la woon te Modou sama sunu papa bu baax la Eh, daf ma doon woo di ma conseillé sama combat bi passé avant bii. Mhm. fi la ko fek woo na ma conseillé ñaanal ma quoi xam nga. Eh, loolu mu nekkoon genre affaire boobu tamit dafa marqué quoi ci mbër bu ndaw moom mu woo ma. Mhm. xam nga di ma conseillé affaire yi noonu. Eh, conseillé ma bu baax ñaanal ma. mu xamul woon mbër bu mag ak mbër bu ndaw quoi. bu pare nit ku oyof la woon quoi. avant combat bi la ma woo ma bëree ba pare ñu daje. xam nga mu teewaat ma gën ma conseillé jox ma ñaanal ma bu baax. ñu ngi ñaanal bu baax yàlla yërëm ko xaaree ko aljana ko. amiin mais ngay ñëw ci digg géew bi. ku ci nekk concentré wu ci sa mystique. mystique bi bàyyi trop ba mu ne làmb ji tey suñu xeful calcul bi dina bàyyi. ñu ci bàyyi sax naan booy ay xale yu ndaw tollooguñu fenn mystique bu bàyyi bi lan lañ koy doyee. ah làmb ji mooy li ma la rek làmb ji moo tolloon foofu rek. mais amaana ñoom làmb ji dafa am fu ñu ko tegoon. ñoom ñan waaw ñoom. ñoom ñan. waaw waaw mais mooy camp bi ma doon bëree rek. gaaga de waaw gaaga xam nga ay ñoom ñoom mbës dafa am fu tegoon làmb bi ñoom mbës sax laay wax. <laughs> Eh, bébé garga moom tamit di la quoi eh, li moom c'est la c'est la loi du sport quoi. Mm-hmm. da ngay daan suba ñu daan la quoi. Eh, di ko ñaanal bu amaatee combat bi ne may ko ndam. yàlla may moo tolloon foofu sama tamit. sama gars yi mënuñ dem indi seen bagage ba pare xam nga ay coono génnee seen xaalis def si ba pare ñëw ba foofu koy parax paraxee wala dara te dañu jël suñu temps def lu ñu war a def lépp mat mais ñu dugg nag mooy loolu. Hmm. ñu dugg euh, ngeen abi laaj leen ba xam noppi ngeen ngeen na waaw. Hmm. mais ñu ci bay dañ na woon bu Habib sifflé. Hmm. Euh, Petit Lo du xaar parce que kenn xameewu ko loolu. Habib day sifflé mu tàkk sa kaw andi la agression xam nga daal sa kaw. jaxase la lu yàlla def bu la wooyee daan daan la soo ko wooyee daan daan ko mais ñu gis moom tamit mu jóge woon ci defet ñu ci bàyyi na ko taxawal xaar Petit Lo Petit ñëpp xamee woon la dem mais nga ñëw téye sa bopp. da ngaa téye sa bopp téye sa bopp téye sa bopp ba mu naan ñi est-ce que abi du leen woo jox leen avertissement la ma waral temps te am na combat xam te waru ko ñàkk. Mhm. Mhm. te combat boobu nekkul woon combat boo xam ne lañ ko war a ñàkk quoi. moo tax bëgguma woon def benn erreur bëgguma woon ñu daan ma ñëw mu naan leen dama doon def lii wala xam diwut ay wax daal moo tax ba ma demee man tamit ñu ne ma teeyal moo tax ma teey bu baax mais boo ma teeyee teey teey teey ba xam ne lii nii tey waaw mooy loolu jëmul kër quoi genre ñaar xale yu war a bëre ba pare ñëpp taxaw di leetoo jëmale suba après arbitre woo ñu jox ñu avertissement ñu ñëwaat léegi après ci laa commencé dox ci kawam léegi bu may bu may dox benn pas di direct direct ba ci watu koñu saako bi ci laa ci laa dóor direct mu jiwul ak man daw song ma mu song ma song. bu baax mais mu jël la jël bu baax nag. waaw ah non ndax dafa ma xool quoi gis na ma xool na ma liir na ma ba mu jóg mu jël ma mu jiwul ak man jël ma mais tamit dañ doon entraîné dañ lu métti euh, weeru koor gi surtout weeru koor gi mun naa ne combat bi ci weeru koor gi lañ ko préparé. mais ñu si am na ko ne ma am na ko est-ce que Petit Lo ëppul doole parce que euh, booy xool Bébé Garga jël bi mu jël Ameth jël bi dafa baax da koo jël ba tey tànk bi ba yegg ci ba fa mu war yegg. si biir weer koor yi dama doon woor. 5 ma dem ay diin di sëf di ak ñoom woor ba pare di ay ponkal di yéeg ak ñoom ci diine ba bu pare damay demaat sàll ci début koor noonu laa def bañ demee ba xaajal koor gi avant may ndogu mun naa dem sàll su ma ndogoo ba pare ma dem géej contact. mun naa ne préparation bi yëpp ci biir koor gi te préparation weeru koor saa dafa métti. eh dafa métti da ngay eh, entraîné ba sonn dafa métti man combat bi dafa jeex sax ma xeeb sama bopp quoi eh ma ne man damaa jeex quoi waru ma woon toll nii waroon naa ëpp nii quoi bi. nga yóbbu dafa tuuti. wallaahi dama ko xeeb ndax si biir koor gi préparation koor dafa métti saa waay eh, li nga entraîné yëpp saa waay nekkul loolu lépp. mais mais mais bi mu bi mu bi mu nee coppat sa tànk ba jël ko. Mhm. ndax nga bëree parce que dañoo gis foofu ah, la nga fa bëree dafa gaaw trop. fi mu jëlee jàkkaarloo yoo sa tànk ak fi nga koy wër ndombo direct laa dóor loxo bi si hmm. kanam laa dóor loxo bi si ginnaaw demul ba mu jógee teg dama ko bloqué ak loxo bi daal bi kon moom gis ngay ñëw bi mu yegsee tamit noonu nga ko tëroo man maa ngi koy gis tamit man tamit ndax gëmm moom maa ngi koy dóor maa ngi koy gis boo xoolee sax loxo bi dóor naa mais yeggu ma bu baax dama dama dama jóg rek moom bi muy ak bi muy ak si tak-tak man wàccaan naa dugal sama loxo dëgg ko naax sigi léegi ma taf ko muy mbot ma mbaar ko njéegi si suuf mu surux waaw dama ko taf mu mbot ma mbaar ko. mu jeex mu jeex waaw mu jeexee. gaaw na trop. waaw ah, mais noonu la ko yàlla bëggee woon moo tax mais moom tamit champion la waaw di wax bés defet xam nga rek. du bésu ndam du bésu ndam voilà. Mm-hmm. moom sax loo des da ngay daanu. liggéey moom tamit xam nga yeneen combat mi daan ko bëree noonu man seetaan mm. moom tamit arbitre da doon def prip moom da doon raag yow day tax sa kaw koy day dox sa kaw. waaw man combat mi ma seetaan day xeex xeex bu métti wax dëgg wallaahi combat mi ma seetaan yëpp day xeex xeex bu métti waaw ñëw bëri yow daan la. nga jóge ci boobu ak léegi yaa ngi noos di feetu. non noos noos amul yow. commencé naa entraîné noos amul fan fan fan nga jëm. balaa loolu sax balaa loolu sax damaa ñëw fekk fi ay nag. <laughs> nag bi fu mu jógee. bi. Mhm. bii fàtte naa bi de. sori na de. kon euh. yi da nga bëgg a gagné ko ma yaakaar nga dem oh, fan. ma génn di ko jaxande nga xam doon séras non ne non mënoo wax nag yi fi nekk yëpp dem bëre daan ñëw jox la nag n'est-ce na yoo xam te sax jaay naa ko ëppoon nañ nii waaw ah, wallaahi non mais ñun dañ koy ñàkkante de ah, macha allah kon ba léegi yaa ngi dem ci àll bi di mbapat yi waaw ah, maa ngi dem ci àll bi di mbapat ba mu bëree ba tey génn gu mais xam naa léegi rek incha allah dinaa génn commencé dem bëri ji gannaaw bëri nga te te sa digganteeg sa digganteeg Boy Jules fi mu toll ku la joxaatoon Boy Jules nii nii ba Bozil mënuma ko bañ. waaw gannaaw gannaaw gannaaw gannaaw gannaaw xewoon a xeeb wala boog jege ñaalem dañ la xewoon a xeeb. xeeb xeebuñu ma de ah. ndax mënuñ ma xeeb xam lu tax mënuñ ma xeeb. non mais mu def ci làmb defoo ko ci làmb. non moom mu ëpp ay combat. Mhm. boo demee ci raw ma ci làmb nangu woo loolu combat la ma ëpp combat kese kese kese la ma ëpp. ëpp ma kese ëpp ma supporter ëpp ma dara combat kese la ma ëpp. <laughs> ku la andi laa doon avancé fi mu toll nii comme gannaaw tegaat nga beneen jéego man mënu ma ko bañ. Mm-hmm. mais su ma amee leneen. combat boobu man dama koo bëgg. combat yow sa diggante ak Boy Jules man dama koo bëgg. moom dafa bari wax waa booy boobu. non mais day wax di jëf nag. waaw ah, nee na man tàppale laa ba pare ñu jox sama avance mu jëlu ko ñu bañ. non mais gars yi ñoo xam ñoo xool ne Petit Lo dafa fi moo tax jëluñu xam naa ne bis bu ma fi defee dara moom Issa dina ko soxla ko da nga koy xeewaat yow. ah bu ma defee dara yaakaar moom ma soxla ko de. <laughs> mais fi mu toll nii bu dul bu dul bu dul bu dul. comme defaguma dara gars yi di ko coow. waaw non parce que dafay neex yéen ñaa yéen a tolloo taay xam nga. coow bi mm, ah, ko bañ suñ ma joxee avance ko bañ. léegi bu dul Boy Jules bu ñan la la làmb booleel amee fii am na ay booy saf man da nga koy waxal jaaw booy yi nga xam te ni buñ bëree day neex dañuy ñëw dañuy bëree dañuy xeex no booy bi bu xeex di bëree mu neex bëri na mhm. euh, booy bi sax dafa am komba mais sa digganteeg moom jeex jàmm dafa am combat ah, mais xam naa sa digganteeg jeex moom làmb ko daax ah, waaw man moom ay morom lañ ci làmb ay morom lañ ci làmb moom kenn mënul bañ sa morom waaw. ko ñaanal mu génn ci lii rek xam naa ne combat moom ah, ñëw na ko noppi 19 la war a bëre. ah 19 su ci génnee bu ñu bu ko joxee sa avance di nga ko jël. non ko bañ. ndax ay moroom lañ ci làmb. Mm. am na am na nag ñoom fi doon limal mais ñooñu moom xam naa ne duñ sooy moom man li waxuma ko moom moo ko <laughs> moom moo ne booyu saf yi fi nekk. booyu saf yi fi nekk man booyu saf. léegi comme kan waxal. boo ko ñemewut waxaat de ma waxaat ko. waxaat rek. ngay lu ma nee ñaabu ndaw ñaabu ndaw. Petit Lo moo ne sa combat moom dafa war a neex. Baye Ma Ndiaye Petit Lo moo ne sa a yow ak moom dafa neex. mais Niang bu Ndaw waaye am na boo yomte dañoo bëri wax Niang bu naa ko benn interview. mais yow xanaa ñëpp dañoo bëri wax. non mais dama ko déglu benn interview genre mu naan Lo lu mu am bëreeg man moom ko gënal mel ni su ma bëreeg moom dama ciy am kase cinquante millions waaw benn interview am man seeraanu ma ko sax mais sama boy ñoo ko seeraan wax ma ko après capture vidéo dagg ko envoyé moo ko wax ci gémmiñam kay mu naan amee loolu nee na moom raw moo ma ko gënal mel ni moom genre daf fi daf fi daf fi def yenn waa yow mel ni ah, moom su ma bëreeg moom dañ may may cinquante millions wala moo mujjee daan rëm de te a mujjee daan ah. sa mag muy muy muy un giga 2 giga rëmm ko daan. 2 moom jóge fa ñoo daan rëmm ah waaw 1 giga parcelle la dëkk. waaw ah, parcelle la dëkk ah mais mooy loolu nag booy dañoo bari wax. ñaabu ndaw daa bari wax. bu bari wax ñaabu ndaw de xam naa ne da lay xaw kii waaye bu du woon loolu sa diggante yàgg moom combat bu neex la mais fi mu nii moom dépassé na la. dépassé waaw yàlla baax mi ngi ci làmb maa ngi ci làmb. xam nga genre booy toog nii sax di wax ci yenn booy day mel ni comme si que da nga leen tëx wala dara te soxla bu ma leen sax ñu ngi seen Jacob Balde moom tudd nga ko fi tamit Jacob. ah Jacob Balde maa ngi moom combat la bu neex la. mais man nag man nag xëy na peut-être euh, kii jël na combat bi sax mais yaa kooku laa gënoon bëgg moo daaxoon Dame Souker moo jël moo jël moo jël Pokola. Mhm. mais sa diggante Pokola loolu sax moo gënoon yéen maanaam. mais Dame Souker jël na ko xëy na peut-être da ngay. da ngay jël affaire rek jo jo jox Dame mu dem Dame ñu ngi koy ñaanal yàlla mooy ko ndam ci combat boobu. bu baax a baax a baax non combat ah, la jël mais <laughs> na daan ku nekk wallaahi. non mun na daan ku nekk mais Pokola Pokola Pokola la. on ndaanaan la mais. day xeex te waa kër googu noonu moom jël boo amul fit moom bu yeboo nga xool lu def. te waa kër googu Dame daa xam seen sarax ndax am na xam seen sax. waaw. <laughs> baax na asalaam na moom ak benn defet la am su ma moo ko daan. daam moo ko daan. waaw benn defet la ñu bëri combat bu métti xeex xeex daam daan ko. Hmm, di ñaanal daam tamit mu génn ci combat boobu yàlla defal ko ci ndam mu sedd gi ndax moom moom xam nga nit ku baax la quoi am bés day sonn ci yow. na lay woo foo nekk xam nga di la kii di la soññ ci entraînement yi waaw di la ñaanal aussi te moom ñu koy ñaanal bu baax ah, ak Baye Mandiaye numéro 2 tamit. maa ngi koy dégg muy lim parcelle eh, naa xam yoon boo gis dafa foo rek am na bund xam nga na laal ko mën a expliquer. kër goo gis day am bund am am fenêtre day am bund mhm. eh, na bund yoo xam bu fa jaaroon eh, du limaat quoi du lim. fenêtre la jaar bunt bi. ci fenêtre la jaar kay <laughs> bunt bee nii man maay caat bi bu <laughs> jaaroon fii moom mooy loolu. fi mu toll nii naka nga gisee làmb. ndax ah, dama ko toog mu dama ko dégg toog di wax ay wax di wax ay Modou Lo. lu mu wax ci Modou Lo. de am na lu mu wax ci moom maa bàyyi ma xel sax dama gis ñu def titre bi def Modou Lo rek ma dugg seeraan bi. Hmm. Hmm. non li mu wax bu ma da ngaa lii naa ko seet mais sax lu wax mais dégg naa ko daal wax ci moom daal mais xamul ko wax ci Modou Lo moom. mais man ak moom ñooy ay morom Modou Lo moom la parce que licence bi muy dagg moom li xaalis bi muy daggee licence moom la Modou Lo daggee licence. Ah, ah ay moroom lañ léegi. ah waaw moom ay morom lañ. ah Khalil. su may paas téeméer ngay paas téeméer kay ak yow ñoo yem bu ma neex aj samay tànk nga aj say <laughs> nga naan paas téeméer paas téeméer <laughs> bokkul. naka gisee làmb. ah mais neex na eh, combat yi fi am ni moom neex na trop macha allah di ñaan yàlla na continuer nii rek xam nga. Hmm. Eh, làmb yëpp di continuer di neex. ak bés journée yi nekk ci kanam journée yi ñuy xaar yëpp. lan nga gën bëgg ci làmb. man lu ma gën a bëgg ci làmb. Mm-hmm. mooy bëri ñaari xale combat xale. non mais lan nga gën a bëgg maanaam sa ci làmb. lan mu lan ngay gis lan ngay gis ci làmb waaw lan ngay gis ci làmb mu neex man bëgg naa yegg au sommet sama papa yegg ma yegg fa ndax man man man man mooy sama idole quoi. yaa moom mooy sama royukaay daal ci lépp. làmb lan nga gën a bëgg tuus. Ah, am na ñoom tamit bëgg naa seen tuus. comme kan. ku ci mel ni Modou Lo. Modou Lo bu tuusee non Modou moom par force da nga bëgg mais kan ah. mooy tuus. non xam nga tuus xam nga tuus tuus laa wax mhm. xam nga ñooñu bu ñu tuusee xam ne ñii ak Garga Mbossé da ngay xam ne ñii tuus nañ tuusu làmb laa la wax tuus. waaye ku ci mel ni Eumeu Sène ak Garga Mbossé bu ñu tuusee da xam ne ñu ñii tuus nañ tuusu mbër. Mhm. tuus tuus laa la wax bàqu ak Papa Sow. waaw moom bu tuusee day neex. lan nga gis ci làmb loo xam te wàññi nañ ko te buñ ko ci dolliwaatoon mu bokk ci luy dundal làmb. genre comme comme diggante mbëri ak promoteur yi quoi ak ak kii ak ak ak ak CNG pour saa dañuy kii quoi yow da ngay da lu yàgg nga ñëw ci géej bu ñu ne dafa yéenu maanaam nit ku préparer combat la rek xam moo lamb mooy laaj loolu lamb noonu la baaxoo quoi lamb moo ne bi ñu ngi koy def quoi euh, xam nga nañu bàyyi ñuy firi waa ci làmb ji xam nga. ak ak mbëri ñu war a bëri di tase. loolu dafa bokk ci làmb xam nga loolu ci làmb la bokk yow mbër bi nga mbër wëreel bëreel day dugg jigéen bi nga war ko fekk. genre loolu ñu téye la waaw ba mu génn. waaw nga a dajante ak waxtaan ak moom supporter yu. nga daw jaar loolu dafay loolu day neexal làmb quoi mais yooyu noonu yëpp seen. nañ ko ci làmb da gis mbër bu dugg see ci làmb nga koy teg bët ci diggi géew bi ngeen war a bëgg ngeen di jàkkaarloo ngeen di jàkkaarloo mais loolu du yoon quoi en fait loolu du yoon quoi xam nga mu war na mën a gën a neex kon noonu quoi et promoteur yi tamit yu ndaw yi quoi mhm. dañ lay fay cent mille nga ngeen nga dem def ci cinq cent mille waaye dafa metti quoi dafa metti dañ lay fay cent mille mbër bu ndaw nga def ci boo paree boo ne dama am ay boo sax gëm waaw mooy loolu amee ah, tamit bu ci kenn def loo mënulaa ah, nit moom da ngay def tamit loo mën rek ndax boo tëddee nga mën a nelaw quoi. Mm. Eh, da ngay def li nga xam ne moom nga mën moom nga saa waay eh, def la maximum quoi dem def la maximum def li nga xam ne moom nga mën. Eh, mooy loolu mais pas ay bor fi am wax dëgg lebagu ma di def ay combat yooyu. Mm, mosoo pa ay nga xalaat ne diw war naa ko yónnee. non non non. Mm. soo amoon kàddu yu mujj lan lay doon. waaw xanaa di sant ñu jàpp si combat bi ñëpp rek. man balaa maa dem jël téléphone bi si <laughs> jàpp dafa bari quoi wallaahi gars yi dañ ci sonnoon quoi dañ ci sonnoon mais gars yi jàpp si combat bi dafa bari surtout waa inte 10 quoi. 10 waaw waa 10 dixième bi ñëpp gis naa seen taxawaay jàpp nañ ci bu baax a baax a baax. liste bi liste bi nii. ah waaw liste bi ci la bokk na gars yi dañ ci jàpp waa ñu yor liste <laughs> waaw di santaat sama papa bu baax ak sama yaay di leen san bu baax a baax fay Mbodj. Eh, Faye bu ñoo joor Abdou Faye moom de genre dafay daj ma man lu nekk quoi eh, te combat bi dafa jógee ñoo joor ba fii ñoo def ay fan xam nga ñu ànd dem estar xam nga boo xam mu daj ci ay coono yu métti daal di ko sant bu di ko gërëm di sant waa ñoo joor yëpp ndax ñoo joor dégg moom dama fa dem genre jàppee ma comme seen doom quoi di ma ñaanal jàppale moom bu baax a baax a baax eh, di santaat Serigne bu baax moom kilifa la mais heure bu ñu demee seet ko daf ñu recevoir xam nga wax ak ñun conseil ñu ci àdduna bu baax ñaanal ñu di ko sant bu baax di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér-gu-yaram sant sama gaay yi may àndal ku si mel ni Thierno Ndaw Thier moom sama combat bu taxawee dootul am jamo eh, ay coono la ciy daj ay coono yu metti Thier xam nga ak Papa Let Papa Let tamit Mouhamed Let noonu Papa borom HLM eh, moom mooy jaay tissu yi quoi. Hmm. Eh, macha allah Papa ak Bas Bas Dieng mooy toog sama cumbukaay di ko sant bu baax di ko gërëm zënd xam nga ak saajo Mané salon jaataar moom moo may wat moom wat ni waa mm. eh, jàpp na si combat bu baax ak Youssou Gueye Youssou Gueye tamit ci la bokk ñi may wax nii mooy sama staff yi ak Pape Diagne xam nga ak El Hadj xama xam nga ak Abdou Ndiaye Jantal Mara xam nga ak sama yaay Sofia. Eh, di leen sant bu baax di ko ak Louga Louga Hassan Louga sama gaay la bokk moom tamit ak Amar xam nga ak Medoune ak Zo Mansour Fall. bu baax ak waa Dis doole yëpp lépp eh, xam nga ak maman Ndeye Nafi sama yaay di ko sant bu baax di sant sama yaay maman Ndeye Nafi ak sama yaay Ndeye di leen sant bu baax ak sama waa famille yëpp yëpp yëpp ak famille maam Dibor Diouf yëpp di leen jaale bu baax suñu papa boobu Babacar di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm xaaree ko aljana ñu mm-hmm. leen koy jaale ñoom ñëpp di santaat bu baax sam papa Modou Lo sama papa Modou Lo moom jàpp na ci combat bu baax a baax Mhm. di sant Pape Gueye Pape Gueye jàpp na ci combat bu baax Mansour Ba tamit jàpp na ci bu baax a baax a baax Mansour Ba ak père ba tamit ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal jàmm xam nga di bëggee tamit Aïcha Diko Aïcha Diko jàpp na ci bu baax a baax a baax Amouraas eh, Amouraas jàpp na ci Papi Korea quoi ak Petit maa ngi leen bu baax di leen gërëm ndax jàpp nañ ci bu baax ak Dadi dadi moom mu ngi dëkk ba Joal quoi bañ ne suba la combat bi daanaka ne sax mais lu xat-xat def na participation am jàpp na ci bu baax a baax waa xam nga ak waa pour oto yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp xam nga ak tuuti di ko sant bu baax di gërëm waa pour yëpp ndax jàpp nañ ci combat eh, mooy loolu ak Vito VC borom Italie maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm Badiane Fatim maa ngi koy bëggee bu baax a laaj maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm Modou Ba Mamadou Ba France la nekk moom tamit jàpp na ci combat bu baax xam nga ak ndoom ndoom Italie la nekk jàpp na ci combat bu baax am sàll mu ngi ba États-Unis moom tamit jàpp na ci bu baax abo moom tamit jàpp na ci xam nga Buna Buna sama frère la Espagne la nekk eh, ak maam laay tamit maam laay jaan jàpp na ci combat bu baax a baax a baax xam nga ak Cheikh Ndiaye seer Marie xam nga ak Abdou njaay Eh, ak soldaaru Petit Lo sama fans bi di leen sant ñoom ñëpp ñëpp ak Assane Fall global textile jàpp na ci combat bu baax a baax baax ak Zagli Poir xam Mam Arrière xam ak Issa Mbili Mbili moom tamit mu ngi ba Joal ñëw ci combat bi eh, sonn si trop da ci ay coono xam nga ak monsieur le maire Lamine Diop di ko bëggee bu baax a baax baax waa parcelle 1 bu 26 waa Tëngéej waa Thiawlène yëpp xam nga waa Touba waa Tivaouane waa Diofior waa Ndangan xam nga waa Niodior eh, ak waa Simal waa Loul Sessène maa ngi sant ñëpp waa Sine Boyar di sant ñëpp ak Cheikh waa Sine Boyar Cheikh xama ak Sidi maa ngi leen sant ñoom ñëpp di leen gërëm di sant ñëpp gars yi combat bi saa ñi si jàpp daal moo bari quoi. Mm-hmm. Eh, ku déggul sama sa tur rek maa maa ngi koy tuub daal. Mm-hmm. gis ngeen nii lay demee woon tey ñu mm-hmm. seet si ne mooy Petit xale boo xam ne dafa bokk ci làmb nekk xale boo xam xamante ne xale bu ja bàyyi xel la ndax saa bu ñëwee ci làmb. Uh, kenn du ne kii uh, bëggul li muy def wala kenn du ne kii respecté wul làmb ndax lépp lu làmb laaj dina ko jox àqam ba mu mat sëkk xale la boo xamante ne bëgg na làmb te saa bu ñëwee day def l'essentiel mooy fulaak fayda bi nga xamante ni moom la làmb bëgg ak li nga xamante ni moom la amaatee bëgg moom Petit Lo da dox ba mat sëkk di ko wax nag na ko làmb bàyyi xel ndax làmb bàyyi xel te ñii ay moroom moom nañ ko jël bëreeg moom ndax ci làmb la bokk kenn mënu koo génnee ci làmb kontaan naa ci yow bu baax a baax. yéen tamit maa ngi leen di bu baax di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm xam nga yéen ñëpp waa waa waa wasaare làmb yëpp eh, ci làmb yëpp di leen ñaanal yàlla defal leen sutura ak xéwal. amiin amiin ñu eh, leen jàmm daal. jàmm ju sax. léegi di leen caméraman bi di ko ñaanal yàlla yàlla am jawar bu rafet. mooy xalil la <laughs> fu di leen jox dig daje beneen yoon yeneen mbër ci wasaare jaa ngeen jëf